daawiru sitt bi ci xarafu siin ci xatam 27 ci man de ñaati cër de wex ca yeneen téere yi a ah, lan la bay wax yamamtu rasulallaahi taaxal muqaddasa xani nit yi wal aldaadi aslan muassasa yamantu jublu naa jëlañ fa ma tayamama mooy tiim mooy jublu jub naa rasulallaahi ndawal laa kan taaxa mooy taax mooy kan almuqaddasa kuñ setal ka kuñ setal ka loolu moo la xamal ne kon nag du quddus quddus ku set ka moo ko setal Ah, kon ci laa jub si xani nit di ba xamul nawle ah, wala mu yokk loo ko fa nit ku fa ku dañ ko ak nit du amul nawle moom temps wal al daal di sufaan ñu ne kii noonam la déedéet balaa ngay am noon da nga fàlle rek keneen ca jamono boobu nga xamante ni kenn benn moroom xam fa lu jiitu aadama man foofa laa ko jubloo foofa laa jublu ci waajur man xam fu ba jar ba jublu ko foofu aslan muy cosaan boo xam ne mu asasan moom lañ fondement yee fondement yëpp tabax boobu gis mu taxaw ci moom lañ ko fondement yee mu asas ah bàyyi kooku kawe di mu ne rasulun wa aslu naa si maa un wa jëndalu falaa inti fi sàkk samaani mu annasa rasulun kuñ yebal la kañ woo aslu naas te fekk boobu kii nga xam ne mooy cosaan nit ñi mooy aadama ba muy dox risaalam nga aadama maa un ndox la wa jëndul ak xeer moom ci risaalam nga ma ngi koy dox booba kañ koy war a yónni si ndax kii lañ ko yónni si moom booba aadama ma nga nekk ci ah, ndox ak xeer falaa in sa amul benn nit fi saaka samaani mu àndi seen koo xam ne mooy wétli nit buy wétli ba muy dox risaalaam nga moom mii rasulaay bi booba nit amul wax dëgg de ah moo tax da ngay xam rasul bi nag mooy rasul xaq rasul bii mooy rasul xaq bi ko ah baa yéen nga dégg li ma wax fii mooy rasul xaq ndaxte booba xaq rek xal ko am fa mooy daw ci ay xaqee xaqaayiq ba xaqaayiq yi xàmmewuñ ko sax ci risaala googu mm-hmm. risaala googu nga xam ne ñooy dox ñoom lañ tudd ay xaqaayiq xamuñ ne rasul ñi bi daw seen kaw mm-hmm. ah moo tax li ma leen wax ne pour nga dem dem ba mën a wax nit ñi nag maarifa piir piir piir ak piir piir piir te nit ñi xàgguñ ci janoo mun te nekk dafa am ñoo xam ne buñ déggee lii di la oo pour bëgg nga lii lii lii yow ku xam ne xagagu ah, wane wane loo xam ne wane ci nga ko man a xam ne man nga koo xam ne ci wax ci wax moo tax na ma ñenn ñi bagaa na ma ñenn baal la buñ ma laajee leen ma ma am fu ma jaar bàyyi ko foofa damaa xam ne fa la seen niveau toll te bëgg ma yàq yàq seen iman ñeem foofu rek waaye kooku nga xam ne moom la yónni te booba aadama maa unoo jëru falaa in sa fi saaka samaani as na ah ñu ne ko bàyyi nu mu ne mu ne tatawara fil atwaari fii kulli haykali waxata ba daal naa si xaramul muqaddas tatawara def na ay tournée li nga baal baat tatawara dafa niroog def na tournée fil atwaari ca tournée kaay ah dem ca numéro bàyyi ko fa dem ci numéro deux bàyyi ko dem ci numéro trois bàyyi ko numéro quatre dikk ba ci cinq nag ñu ne al aana daa im léegi nag gaaraas ngi ak si nga gaaraas ci mooy daa it mooy aadama aadama adama mu ne al aana daa im léegi gaara gaare na loolu nag fii la nekkoon doon ndaw nag ci atuwaar yi fii kulli haykalin bépp jëmm haykal jëmm ju nekk jaar na jëmm ja réglé jëmm ja lam lañ bëgg mu réglé ko fa jàllaat nam ko defee ci buttoon nag noonu la ko defee ci suwóor ci biti na ko defee ci biir na la ko defee ci biti ah ñu ne bàyyi ba kañ mu ne ma ngay dox ma ngay dox ma ngay dox waxaataa ba daa ba mu feeñ li naa si ñenn nit ñi ba mu feeñ nag mooy li ma ko nag ah ci daay naa sut xar man muy kuy moo xam ne muy ponkal muqaddas nañ ko seetal wécc moo tax aadama ba mu dikkee moom aadama dong dong dong moo dikkee ne dàng te fekk nag moom ba mu dikkee ne dàng dafa am ku mu wane ne kooko moo dàngaaral moo feeñ feeñaayu kooko nam nekkee ci kenn ka kooka nag boo gisee kañ ko njëkk a yónni ci naasut mooy aadama ah, ba mu dikkee ci aadama ne ko nag ma nag su ma su ma dox du passé fii yow nag laa sar sa mission li des di des fii nag la commencé rasulaay gi nag risaal rasulaay fii la commencé dox tànkam nag bàyyi ma dégg fii la rasulaay bi commencé nag <laughs> ndaxte fii la ñu fu mën wax ndax foofu yëpp ci bu la du dox gis nga lépp lu la wax mën nañu ko dem ba wan la tànk ba keroog xam nga gis nga raax boo jaa bi amrillahi yaton di kër bi amrillahi mbiram laahu la indi du rasul la ko mooy bi amrillahi mbiram laahu la indi moom rasulaay bi ngi nii yeddo on ma ngay oo ñëpp mu ba basiran ma ngay bégal ñi ko nangu wuusi mu ne ah kama leen oo de ku ca ku ko nangu wuusi te mooy laaw telande oo kontaanal woon na siiran ma ngay waar ñi nga xam dañoo bañ ñi aw yoonu iblis mu ne ah ku ci bañ na seen seen patron ba bañe woon ca départ da ngay alaku de sàkkooran muy ku sant shaakiran muy sikkar wa muqaddasan mooy kuñ setal wecci wecci wecci amul benn tikk tikk boo déggee kuñ setal mooy ki yaakaaroon dafa takk te takkul moom mii moom lañ yaakaare takk moo tax bu ne sóoratu ixlaas duut këri lay sellal moom la yaakaar ne moo takk ndaxte xalqiya bu dikk jaxasoo xaqiya xaqiya bu jaxasoo xalqiya te xaqiya bi takk xalqiya bi takkalu ko moom dong la ku dul nag ba nga jaxasoo xalqiya xalqiya laal taxal na ci xalqiyaam bi moo tax nag li tax nag moom amul benn taas taas taas moo tax nag moom ah lu ko neex def te du am problème moom am tas-tas hada allahu aqwaman qafahu ajillatan wa dalla qawman qarqalahu wa tamasa hada jubantee na allahu yàlla hada gindi na allahu yàlla aqwaman ay nit ñen xafawu ñooñ ñoo ko xeñtu ajillatan ñuy nit ñoo xam ne ay kilifa yu mag yàlla gindi ñoom ñi xam ne ñoo ko doon xeñtu maanaam loo bëgg boo ko toppatoo ña doon ña ko toppatoo boo ma ne man toppatoo ma say mbir baaxul ña ko doon toppatoo ay mbiram yàlla naa yaa toppatoo kaay ma la ki nga toppoon. xam nga toppatoo boo ko déggee mooy topp boo toppee boobu ngay toppatoo ko nga topp ña ko toppoon toppatoo ko yàlla jubana bañ dem nañ ba ne ah gis naa tànk mi ngi ni waa jàng ni waddala la réeral na xawman ay ñoo xamante ni xar xafoo xalaw dañ koo bañ ma daakara ba ko maa xalaa xalaa bu bañ lay firi waxtama sa seen ñu gumbo ñaa xam dañ ko bañ seen bët yi euh, bët yi dañu gumbo puisque ñaari bët ah dafa am dañuy wan ñaari bët ñaari bët biti yii ah daf ñuy wan ñaari bët biir yi ah ñaari bët yi nga xamante ni bale mooy roxo bale mooy xel ba ah ñaari bët yooyu moo dikk ci xol bi place bi ñaari bët yooyu nag boo xool ne na ñaari bët yooyu dañoo gumba biti même bu bët yi gisit gisuloo ñaari bët ci biti yi nag mën naa gumbo fekk ñële gumbawuñ mu am imaan kon nag ngumba daf ñu dikk dañu wan gis nga ngumba ci boppam leçon la soo gisee ku bëri gumbo loo ca jàngee Ah, ndekk ñaari bët yi dañuy wan ñaari bët yële kon ndeke kon nag ndeke kon man su ma ma ñàkkee fayda sama ñaari bët yi da bu gumbee muy musi bu réer yi nga fexe nag sa xol ba leer sa bët ya leer maanaam sa xel ma leer sa sa roog a leer leer nañ sa xol ba daal leer nañ kon nag lii mooy nag ak ñu ne kon tam intimaas ala faskuri siddiqa saani habibina faqad anfaqal amwala xamara anfusa ala dama ne fas ko tuddal ma Siddiq Siddiq Ababacar saani habibina ki nga ne mooy deuxième gis nga de Babacar Siddiq dafa wane de deux nam nekk numéro deux numéro un ca de numéro un Babacar ak Mouhamad bi mu dikkee Babacar de numéro un Babacar numéro deux ñaari numéro un numéro deux bi dafa jàng numéro un numéro deux bari ci biir <laughs> ah gis nga kon loo fi gis jàngale tableau tableau ab tableau ab kon na Babacar moo nekk saani habibina faqat an faqa dépensé al wala di di bàyyi dégg nga léegi bàyyi na resto yonent yàlla moom dafa jël xalalam yëpp jox ko laaw Babacar bi mu dikkee lu mu def dafa jël li mu am yëpp jox ko xamara dundal na moom bakka moom euh, moom Ababacar an seen maraaj yore na seen dépense di jox añ ak reer ñuy dikk ah kon nag kooku mooy numéro deux waxal la gal ilaa sikkiri siraaji hmm. jëm ci tuddal ma lamp ba mala naa koy xam ne mooy suñu yër waay hmm. ma bàyyi kooku moom mooy kan wa kooku mooy Omar alfaaruq ka xam ne man mooy koo xam ne lam yu was yu saa seytaane mënu koo rambatal jaaxal jaaxal seytaane ñeewoon Omar ba da ko jege xam nga lëndëm ñeme na leer leer kon euh, lëndëm ñeme na leer ñeme ko de noonu la Omar mel loolu tax nag kon kii mooy far ko xam nga lu mu ñu jàngal Omar du leer waaye jëmmi leer ja li ñuy wan. nooruhoo awal wujudi leer googa nag nam dikkee séparé ñu diggante xalqee bi ak xaqi bi xam nga xalqee ak xaqi bi ko ko séparé kooku mooy leer dëgg-dëgg kooku nag xomar moo di ko wan ni waa jaa ngi nii de ki ngeen doon seet mooy borom borom borom xalum xalum farq ah wasalis di si nooray nii xosmaana maa di xan doxat badadal am waala fi lay mun fi mun fi sax wasalis na nga troisième bisinu lay ni borom ñaar de rek ma bàyyi ko kan Hosman-Hosman, ma dem nga tak nga tagal ma xosman nak ndax faqat na al awal ala ndax milliardaire la kon mom, ah fi la ci Allah mun fi san muy xetli kon nak borom alal diru jeexal kooku moy kenn ki woo ji naka daalam sa ax milliardaire bi kay xam nga ne moy wajju di doon makka ki ñu woon ne kii mooy milliardaire ba kat mooy Ousmane mooy troisième position way bi wasiiril badri baabi uloomihi halil abi sibtayni laysan muqallisa way bi na nga wéer sama waaja wasiiri badri kaa xam mooy premier ministre a weer wa baabi uloomihi xam ne mooy buntu xam-xamam buntu xam-xamam mooy sa waaja xam nga wax dëgg-dëgg kii mooy wan nag kii baabu ulum baabu ulum kii mooy baabu ulum dëgg-dëgg wax kon kon Aliou duut moom la waaye ki nga xamante ni moom mooy jëmmi xam-xam ba bunt ba mu jaar pour génne xam-xam ba kan la du mooy moom kon nag kii juddoo Màkka Aliou dafa dikk di ko déclaré di ko di ko di ko ne ñu ne ñu ne kan la Aliou mooy ka féete kaw lépp Aliou mooy féete kaw mm-hmm. Aliou laa wax kan la addi sibte yi bàyyi ñaari sët yee Hasan ak Ousseynou Hasan ak Ousseynou xam nga ku rafet ak as aji rafet ñaari cheikh mooy ahmad yee ki ba nga xam ne mooy ahmad yee Muhammad ahmad yee Muhammad du mooy ñaar mooy ñaar te ndaxte xëy saamoon yaatara sumin ba di ismoo léegi ñu tuddee Muhammad ah, kon Hasan ak Ousseynou luñ luñ déclaré lu ñu wane aji rafet jàkk ak aji rafet jàkk dégg nga kon nag kii nag ali lu mu ni déclaré di nga lii mooy maarifa kon doo xal yu mi nga xam ne mooy xal yi mi nga xam ne moom la yi xuloo su seex yi xamoon kii kii dafa dikk da déclaré léegi nag balaa ngay déclaré nit xanaa da ngay bàyyi ba mu dund ba ma sëkk léegi nag kon mu jaar ci Babacar ga dikk jaar ci Omar ga dikk jaar ci Ousmane euh, Ousmane ga dikk ci Ali nag dégg naa bu nekk Ali nag mu nekk naa ne maay Rasulullah Muhammad Rasulullah kon nag kii kay yow soo na ali moo war a jël place bi dafa jël place bi bu ko jëlee rek Aliou du kon Aliou moo gën moo war a taxaw moom ko wàcce ko na dafa dikk recevoir kële eh, eh, dafa am Insa ba mu dikkee eh, wilaayatu suxraa ba moo dale ci àll ba ci Insa ko wilaaya nag kooku wilaaya bi nga xam moo nekk moo nekk ci ma euh, kubra bi kubra bi nag bi mu dikkee ba mu dikkee nag ñu dikki wilaayatu osman ñetti wilaay yi moo tax bàyyi na maa yi fàddu li subbi sama wilaay yi nga xam ne wilaayatu osman wax na mooy waa nga xamante ne moo nekk ci diggante ba mooy wilaayatu kubra wilaayatu osman fi nga xamante ni miqdaaril azim mooy man nag wilaaya gi ma yor ma yidaatu xasan ci laa xamee ne man ilayya wa min nii maa ifaat bi sabit ifaadatika min ka ilayka ci man laa xamee nag ndeke ci man lay ba man la jëm si ci man laa jóge ko lépp loo xam ne ñu koy sarwi ñu ko joxe ma xam ne man maa yore loolu ah kon nag lii moom boo dégloo wuy bàyyi ak wéy yi nga xam ne moom la wala wala alquran wala taxawaayu saaba yi xam-xam benn xam-xam lañ ñëw ki ñuy xam ne ñëpp kenn la ñu xam le benn table afis bu ñu bi jaayi rasulaay ah, eh, wasa bi jumlatan fa nafis ko bi nafisil kurba nafisa bi jaayi rasulaay ca daraja ndaw laaw wasa bi ak xolofaaw ya ñu àndal wala boog ànd jumlatan ñoom ñëpp fa nafis yàlla na nga gis nga nëfsu nëfsu li tax ñu dogoon fi xam nga léegi ku tëjoo sa bakkan rek nga dee. moo tax nafasa de nokkeekaay bi bi maanaam dundeekaay bi mooy xetleekaay bi ki tax deewul mooy nafas nafas kon nafas boobu nag wa nafsin wa maa sawaa nafsu bii dañu wan nafsu bëri ndaxte nafsu boobu bu ñaari faxam yooyu ñaari jaarikaay yooyu bu ñu bu amuloon kon xam nga dañ ñu takk ko léegi nag ñaari nafsu bi dafa nekk ana nafsu wal afaq mamara ayta trani on dëgg de kon nag fa nafsi koro bi nafsil kurba nafsi kon nag yàlla nanga nga xettali sama njàqare xettali su njàqare na nga continuer kon nañ yàlla ñu ñëpp ñu ngi jàq ci njà corona bi yàlla ñuy xettali ci corona bi amin salaatu wa taslimun alayhi bi qadrihi mal ali wal ashabi mi man taqaddasa nañ def ci des ba bi ci tege mën a continuer bariwul ndax nga yàqante di dem aywa xarful kaaf ñu ngi ci harful kaf ndax dañ bëgg diwan bi jeex de bëggu ñu nekk fi rek ba nga am ren ba déwén te du jeex dañ bëgg ñu am ko bu bes harful kaf mi ngi nekk ci batay katam euh vingt huit ci man de lan 21 ci ah ci yenen yenen téere ma dëgg waaye kon gaa yi ñi ngi dem ba tey ci diwaan bi caarafu kaaf laa nekk kafaani humoomi man kafa sulmata sirki wa badada abtaalal bataalati wa sëkki kafaani fegal na ma humoomi sama itti kan man ka xane kafa mooy fekk sulmata sirki lëndëm ak bokkaale lëndam ak bokkaale mooy boo déggee lëndam ak bokkaale mooy lëndam ak xalqee bi ku ko fa ko ku ma ko fegal soo waaj wa badada moo tasaare ab taalal ba taalati ay jàmbaari caaxaan yaa wër sëkki ak sikki sàkka caaxaan sikki sàkka yi nga xam ne dañoo jëkkoon sama taxaw sama dënd bi nekk fa def bëgg a yàqal sama liggéey ba mu dikkee dafa dàq yëpp yëpp yëpp kafaani jëmeel xam ni surtout mahararan bi fekki rasulullahi qalbi mina shirki ni fegal na ma jëmin xam yi mboolem itti yàlla ñu ko fegal surtout mu jinaa man Ibrahima Niass muhararan may kuñ may indépendant total muharar indépendant mooy muharar léegi boo gisee nit ñi dañ nekk ci colonisation damay wax ne colonisation coloniale bi moo gën colonisation bakkan colonisation tubaab bi jeex na waaye kenn ko ne yaa ngi yore sa colonia colonia colonialisme boo xamante mooy bakkan ay <laughs> ba ngay libéré bakkan bi moo tax ñu ne jeexal ne xeex bu mag ba xeex mu ndaw bi ñu ngi dem ci xeex bu xeex bu mag ndaxte kii moom yeneen yendu yeneen fanaan boo duggee ci maarifa boo duggee foo def yàgg moom ah, su ko defee nag foo toll mu lay lalal plan man Ibrahima Niass dem naa ba nga xamante ni sama waaja gañe naa ko am indépendant total la fekk Rasulullah yi tekki ga ma rasulaay bi tekkil xal bi sama xol xaani sir mi ne ba bokkaale si nga de yi nga li ma ko li ma ko xool li ma ko xool moo ko mi xam googa mooy moom lu min ngay employé mi ne sirki mooy bokkaale ki nga xam ne moo nekk ci sama xol bi bokkaale yëpp yëpp yëpp la ma rasulaay génne sama xol bi man Ibrahima ñe ma am indépendant isaahalla jeysul xami badada samlahoo bi noori yaqinin laa yarimu fa yaamul isaahalla bu ne cëpp jëy sula mi soldaar itti mm. ah bëgg dal sama kaw mooy it jamono problème baya bay bay mbir am na problème am na de mm. bari dama tasaare samloo seen mbooloo ma mm. ma bàyyi nu mu koy teere la nu mu koy tasaaro bi nóori yëqiinin leeru yëqiin xam nga bu yëqiin bu yë bu wóolu wóolu te bu dajee sa xol bi rek lëndëm na lëndëm na dugg ci xol bi koo déggee mu jaaxle ah dafa fekkoon yëqin moo fa dañ waaye wér na ma ne yàlla moo def lii te moo koy dindi sa fi du raf kon nag lan la kon xam nga doo foog ne bul bul ne benn mbóot mu la xam ne moom la bàyyi sikkat ba tax mu dem déedéet maqaama yëqin ba ba xam ne man daqaloo kaana amina man leeru yëqin googu ci la tasaaree bàyyi ne ba ma amee wóoluti nga laa yërëmul du dañati mukk man man wóolati ko du dañati xoola bàyyi lim mu ne fa yaa mulk ay waay maa nguur waay ndaw nguur gu rëy maqaama yëqin boo ci yégee yaay buur boo bu ñu yégee buur nga bu ñu yég buur nga ndaxte yow buur moom am na lu koy tiital te yow buur da amuloo tiital maqaama yëqin mooy maqaama ibrahima ndaqaloo kaana amin nan fexeel ba dugg foofu yàlla ci yàlla dugal ah, wa askuru baytan kila qabli wa innahu maqaali wa xaali xaala tadiqi wadanki isaa kaanat al aqdaaru min malikil mulki fa siyaani indi maa yasuru wa ma yëpp waskur wa askur dinaa tudd baytan wuy xiira boo xam ne waxoon nañ ko xam la ma njëkkoon am na benn wéykat boo xam ne am na moom a njëkkoon wuy wuy wa waaye wuy wa sama yëfu la sàccoon wuy ko xam nga da nga digg wax joo xamante ni waxi waa jii ñëw na seytaane sàcc ko di ko waxee waaye wa innahu wax jooju maqaali sama wax la wax waxaali xaal ba mu nekk du xaalam sama xaal la xaalata diiqi ba mu nekk jamono kattar wa dañ ko ak jafe-jafe benn waaye bu am problème yu bëree bëri bëri bëri mu am wax mu wax mu wax benn wuy mu ne isaa kaant bu nekkee al aqdaaru dogal yi waaja mu ne bu dee dogal yi nekk nañ min maalikil mulk yoo xam ne mooy moom nguur yi moo dogal li ma dal nii fas yaani indi lu yem la ci man maa yësaroo àtte bu may kontaan loo bu ma yukki ak bu may jooyloo ñëwee ñu man képp problème bu dikkee bu dikkee boo xam ne damay kontaan ak bu may jooyloo yi nga ma boo diggee diw dafa yëw dafa yëg ci ah ñu ne yëg na ci ah maanaa lu euh, euh, ñu ko dégg nga dafa yëg ci xadratu mustawaan diw yëg na ci xadratu mustawaan xam nga ni bu ko defee dañuy foog ne benn pays ba xadratu mustawaan mi ngi nii mooy nga dem ba xemale ñaar yoo xamante ni métti métti lool neex lool xam ne xool nit ak neex metti na ak neex na ñoom képp cew yëngalu benn yëngalu ci ndax su fekkoon si métti bu dikkee yëngal la kon nga manqué wala bu neex dikkee yëngal la mu ngaan nga manqué waaye ñoom ñaar kenn mënu la ci yëngal booba nag nga yëg ci xadratu mustawaan nag man de gannaaw dogal bi daal sama sama patron moo moo dogal dogal bi bu yeboo nu mën a mel rek man d'accord naa patron moo ko def ala ya rasulallahi ya xayra mursalin samawta anil akwani fadlan minal malki ala dama ne ya rasulallahi e eh, la wallahu bi yaa xayra mursalin yow yaa xam yaa gën képp koo xam ne yebal nañ ko samawta tiim nga gis nga asamaan asamaan ñu ngi jël ñu ngi ko samaw ji fi yëkkati yow yow tiim nga xam ne ak waa ni passé nga nekk te mm-hmm. fan lan ci nga neel fan nga ko jëlee minal malik ki nga xam ne mooy buur bi nga xam ne mooy buur buur moo la jox nga ne yow suma yow rasulullah ah wa yasma bikal maddaahu fawqa fuqurunihi walaw tàggkat yi mooy yàlla doon gàmmukat yi yoonu gàmm gis nga gàmmukat yi tey boo leen seetee ñoo gën a euh, néew man-man ñoo gën a gën a suuf ay kër gàmmkat boo xam ne gàmm ci la tabaxee ay étages même bu la neexee xoolal gàmmkat bi nga xam ne ñoom moo gën a siiw ci Sénégal fii demal dëkkam ba ndax dafa gis euh, ñu ñun étage bi ci la ko tabax ci gàmm yi dañ ñooy gàmm te bakkan a tax ñoom gàmmkat bii moom ku ko gàmmool sa affaire baax mu dem kumbal gàmm ko gàmmukat bii moom moom astu lay joxe waaw nga jàng ko jàng yoo xam ne dafa yem rek loolu doo loolu du gàmmukat loolu waaw dafa am de gàmmu gii dañ koy waajal moom ndaxte borom yónni la euh, euh, mbub moo xamante ni yaa xottuwaak yow mën na deux cent mille loolu ko jege ñu yónni benn ambalo boo xamante ni dañu ko avancé xam nga xam na xam na ñoo xamante ni programme at bi yëpp samedi bu nekk am na gàmmukat samedi bu nekk ak dimanche gàmmu la pour moom ba léegi boo ko bëgg a gàmmaloo dañuy seet ci programme annuel bi ndax da nga ci xajam de waaw loolu bi nga am ci gàmmkat yi fii nii léegi ndax demal xool xool ñooñu ku ci am ku ci am immeuble yu rëy yëpp doo ci gis ñu ko ñoo ko moom de te ñoom ñoo waru yor immeuble yi kon nag li tax may wax lii damaa bëgg ñi xaccoo taabal ndax weccet wi nañ ko bàyyi nag ñi gàmmu teel ndax ku ko def wayeesoo bikal ma daaw faw ko kuróo nii ñoo tim seen morom yëpp yëpp yëpp waaye gàmmukat boo ko seetee du dem jàng du dem du dem jàkk ja ndax nelaw lay dëkkee nelaw ba cëg ah di wax guddi ah kooku dana dem gàmm balaa moo dikkee ci taabal day nelaw ba ju gee julli gee jot am na ñoo xam ne duñu kii te maa ngi lay wax ne maa ko maa ngi la koy wax wéy naa ko sama benn wéy yoo xamante ni ah, bul wéy yóneen naan rikilees bul wéy yóneen naan rikilees wéy naa ko yàggoon am na ñoo xam ne balaa ñuy dikk dañoo tàngal baat bi ak rikiles xam nga xam nga xam nga li ma la wax billaay li ma la wax lu ma la wax man man dama wuy naa ko ba yàgg ne ëpp na fanweeri at ma ko léegi ah loolu nag nga dem ba wuy yoon ci bëgg nit ñi xumb nga xam ne booy wuy sa baat bi day tàng nga xam ne dootu dootu ànd ak sa sa ko sax pour tàngal taw taaw loolu waxuñ loolu de lu ma la wax am na de jarul tax a génn koy génn am na de daa mi ngi ne xoolal moom musicien bi yoo xam ne xam nga xam ne musicien yoo xam ne tuuti bu ñuy yéeg dañuy tàngal ba tàngal dëkk. waa dañuy xabtalu loolu mooy xabtalu comme musicien yi ni ñuy ta xabtaloo am na gàmmukat yoo xam ne noonu la ñuy xabta xabtaloo yàlla bu mu bokk bu ñëpp bokk na. wóyees moom bi kan ma daaw faw ko xuróon gis nga kat musiciens yi sax ñoo leen gën. musiciens yi ñu ngi am ñoom ay yu ma xamul day am ay kii yu bien yu koy ndax ñoom dañoo nangul seen ne saytaan la ñuy defal. yow da nga dikk ne yàlla nga demal su fekk seytaan nga demal seytaan ne yow nag gannaaw gannaaw nekkuloo soo militant bu wóor a wóor a wóor doo am dara yoo xam rek ne man faaletu bala yow yow kii nga wéel ma may ma paas ma yëkkati la waaye nag ñun day nekk ah bay na bay na laa ilaha ulay wala ilaha yow mu sab sabir lañ ñoom nekkuñ nekk bokk ci musiciens yi te bokkuñ ci ñuy taggal nit yàlla laa ilaha ulay wala ilaha ulay loolu gàmmoo kat waru ko nangu wa yees ma bi kal ma daawoo foo ko xuroon te xam nga ne bàyyi moo su bor ku mu nekk de nga ne bàyyi mu ne walaw xasuran même bu gàtte amaaroo xilat mus même jaamu yàllaam nga fekkente tuuti na te moom moom tagg yonent bi mooy bind di gàmm seetal bàyyi moom mooy bind mooy gàmm ah comme toll ci kaw suuf bariwul de ah kon nag lii lañ xam ci taggkatu yonent bi moo war a sut ay morom rafatu eh, rafatu ila taaxaal amini sikayati walam yulqa soo saqoon ilayhi falam yuski rafatu yëkkati naa sikayati sama njàmbat foo ko jëmee ila taaxa jëmee ko ca al amini taa mi nga xam ne moom lañ may jàmbat yëpp moom laa ko wax ne ko ah, taxa man day njàmbat li moo dal walam walam yàlla xam dajal soo saqwaa borom taxee di ilay ak taaxa falam yuski te dinañ ko njàmbatam arab daa xam ne sakkaytoo fa askaani jàmbatal naa ko mu dindi ma sama njàmbat waxuñ ne jàmbatal naa ko mu jàmbat ma loolu nag lu ko arab boo boo ko jàng ci lu ko arab jàmbatal naa ko mu dindil ma sama njàmbat waxuñ ne jàmbatal naa ko mu jàmbat ma ah, faqad kaana yuski lil jamaali wa innahu laaska xasaalan xad saka xiifatat fatki faqat li ma la wax dama la indi tolow de faqad kaana nekkoon na mu yontu yuski da dindil njàmbat lil jamaali ci gëlëm gelem nga amone problème bo xam ko am problème ak waye ba mu ne nak bu ko waji mu ne ko duma nangu di ke da nga am ne ko man suma gelem gi dafa bañ léegi duma ma mu ne ko dama indi ko mu ñew mu ne ko yow lu tax nga ne du kenn du kenn du la war kenn du mu ne ni ngi ni kom jox ma lek duma jox ma nan mu ne ko saway ah acca kon di lu gën gi jambar ha ah, kay way la aska din la jambar xasaalan kiwet kër gi mu dikki ne ko waa ji dem maa bëgg a rey ci sama doom ya mu ne ko bàyyi ko mu dem mu dikk mu ne asar kon nag dina kiwal xat sa kaapam ne jàmbatu na xiifatal fëtti ndax ragal ko ko rey yonent bi dina la ko njàmbat te loolu dëgg-dëgg yàlla ah bakkan bu rëy mel ne bakkanu gëléem ah ah léegi nag réer nag kë këru àll xam nga euh, euh, rabi àll yëpp dañoo réer kon nag ku réer mel na kéwél gindi na la kuréy toll na gërëm jubbanti na la woosaanoo ni xat askawo min bari yusufin wa abaahi turan min al fatki wal hatki woosaanoo borom jën wa mu yunusa xat askawu dini na ko njàmbatam min bari yusuf gannaaw yusufa xam nga kon xam ka ngay jàmbatal ka ñoom de bañ jàmbatee rasulaay lañ jàmbatal rasulaay ba nag xamuñ kayil kan la wam dal waye nak yusuf la jabatal nako mu liko jabatal kan ñu ndari yusuf yusuf mo itam ba am amé problème ñu tikku ci ca ko jabatal nako mu liko wa abaye ak yusuf yi turan ñom ñep minel fat ki bañ bëgg ray wala ki bañ ko bëgg xor sen sutura ku mel naka ibrahim ba ko namrod bëgg a jabatal ah mu liko jabatal wa sulha sulaxaa wa sulha sal <laughs> li am ci wax ji daal inna taw mu min allah yaay yërmaande yàlla rahmatulaay yow mii la boo déggee yërmaande yàlla du lu nekk ca xol yërmaande yàlla ja mooy yow mii nii wa rahmati wasaat sama rahmatu yow yaay rahmatu ba mawlaal xalqi xam ne mooy mawlaal xalqi patron bi nii fil bëri buñ nekkee ci jéer ji wal furki ak bu nekkee ca batoya buñ nekkee ci butoon ak bu nekk soo locc na moom bu nekk ci jéeri ja ak bu nekk ci géej ga yow yaay seen yaay seen patron moo tax ñu nekk ñu tuddee ko ruusu laa xaay ki tuddee ko aynil ma aarif falam yax sa abdun ma baqayta diaahu walam yax sa alul xaqi kayda sawil ifki falam yax sa dragal xabdun benn jaam maa baqayta feeg yaa ngi des diaahu ak sànkuteem jaam ba nga xam ne sa jaam la sa jamm du sank mukk tank yaa fi des te xamna yo yow dafa jóg du sank du mukk ak sankom walam yax sa dogal alu haqi ñi xamna ñoy borom kay di sabi def ki pexem xamna ñoy sos ay nar nit ak dëgg du ragal mukk ya nga xamante ne pexem ay fenkat wa askuru rabban alhamal khabda rusdahu wa askaru atbaa bari ummi sikki la wa askuru ma sant man ibrahim rabban rabb bi nga xamante ni alxama mooy yënkadeel alxabda jaam bii alxabda jaam bii moo ko yënkadeel ruf doon jubam bàyyi rusdu xam nga Ibrahima daf doon wuti njub ci xadar gannaaw ba mu nekkee yonent ñu jox ko téere kii nag jaam bii moom dañ koy yënkewal njub bi ah moom rusdoo ñu ne mu ne fa asqaru adbaa ñi gën a tuuti ña ma topp waxoon na ña ma sopp de ñama topp bàyyi na ne bàyyi na ne toppe toppe la xando xan la bu kii demee kii toog rek xando amat kon nag bàyyi xaw yoon wi nga xam ne mooy yoonu taqaa ak yoonu njub ak yoonu mbaax nga dikk ne sànni ak yoonu sariya bi saayir sari woo noonu mu bi yoon nga dikk sànni ne sariya nangam nangam nen ndax toppe nga fa asqaru atbaa yi bëri uñu set min sirki ñi ma topp ñi ci gën a ndawee mooy ñi nga xam ne borom maarifa boo xam ne xam nga ko ci maarifa euh, euh, kamal ñoom ñëpp seet nañ ci bokkaale moo tax tànk yaa ngi bokkaale mi ngi des yow bokk ko ñu topp bàyyi bàyyi ku ko topp da ngay seet wécc wécc doo bokkaale doo oote doo ne man la doon a kii la wasaalika fadlayi falabdu ajisun xalaa wat la yàqin aw mujaadabati sëkki wasaalika may googu nag fadlayi ngëneel laaw la fal abdu jaam bi xaajis dafa rottu jaam bi ñoo ne ko xam nga ne mun tama lii gii may du ko man xala wasli xaqin moo la mën a jox ko xaq aw mu jaanabati sëkki wala mu lay mot nekkuloo ay sikki sàkka xaq moo nga ne laaw rek moo ko may yal nañu ko yàlla may ñu am ko kon salaatu wa taslimun ala taha amadin wa alin wa ashabin saraatin xalal bunki bàyyi ñes dina indi baat yoo xam ne képp koo xam ne bëgg ko firi ci jaaroo ci kam ne mu dugg na nga dégg lu ko dëgg-dëgg da nga jub salaatun salaatu wa taslimun xaalataa yàlla nekk ci ahmad ahmad wa aalin ak aalu wa asaabin saraatin ay sanga lañ xaalal bun ca cosaan xam nga al bank arab mooy wax banque banque banque xam nga tubaab na daf ne banque dafa ci nun gu ne banque bun ku nag mooy cosaan dañ ci kay xaalis xam nga kii nag ñoo doon cosaan bañ ne kii xaalis bun ki ndax ñoom ñoom ñëpp kenn ku ne kurus la xam nga xaqaay yëpp bu ne këntu nga asali asalaat kenn ku ne këntu nga kon nag kii ñoom ay sang dañ ba ni ca asali asalat ca abadi abadat ca xaqiq xaqaay ñoom dañu nekkoon ay sang foofee ala buñ ko ci cosaan asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu hmm?